ma mbindeef doon xam biraayim xam sëriñ basiiru mooma noon dinaa xamal ñi sëriñ bu baax bi ba ñépp xam na kenn la yow baate jang def ci bayit laa la digal wutil gayit te boo noppee nang ma ko yën ngir fan rasaat lu yomb la Seex Ibra Faal ci ay jikkoom yoo xam ni war na jépp doom ju nekk di ko ca moom ndax mel ni moom lu jafe la kersaa ki teggin moo ko am tamat wëlëre nel naam du xeeb du naw moo bari jom ñi meta ñaw ku la moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mënta war ñi dogal xam la ko war wuute wula kul yónni la gisoon ñi mu war a gisee lum la digal def na ko te lum tere yit lum bàyyi la ñeent fukki kilomètre yu wér la cer na tooloo maa ko wër danaa ko wax waxi wér ngeen xam ni kooku kenn la ba mu xëyee mbàkke kajoor la romb jepp romb las jaari lu mu ñam ma waru faste booba tëwru gott la seexa balla moo lu njak ca tak sasi gas lu buroo ji la sasi sanci ba moo di al sasin taariixa ngi bopp dëgg la moo toj ci góoli toj kaloom toj ñen mi génn fay ñaloom gaynde woon ca biir mu boom te daqi leen tey jàtti la la dale bi bi ba jaxaaw jàppu ngalaa xol di ba xaw mu naan murit bu leen taxaw dem leen bu daan dewit nde la la dalee tànku ba dayoor jàpp baxal cernoo ko gor moo gor barag ya akulër gordër bu goron bu mokk la kartus bu rëy ak daanni doom la jox daanni yedee fi yéem yoo xam ni fun tollu di te booba temps witnde la keroog la gor lu jàppu ngel gor dunku jàll dullu ngel ni gaañe wéy leen ba wullu ben ñi gor ba te ngi la at ya ca des la doj koso ak lumbi daw ri ca koso teewul mu daa di fetta su gaaña di gor ba koobel koobel la def daaru salaam waaju fa dëkk am salaam amiru njoom na nga ni gaam xam ni sa baay sedd na la fekkoon na ceerno gor lu pet ak am ba lépp set ba gaaña dal ko dal bu set ne jii de lépp jàtti la ku musa ñëw ak foo jóge maam Cerno dalay nangoo jige daa lay wutal tool mu jigéen di la dëkkal fii bayu la noo mën a melit du la ñàcc loo mën a amit du la laaj maam Cerno ku ko tooñ mu daaj la xamal la yàlla sàmm la du laaj asaka mbaadanu du jéggi déel ni daaxelu du daggi mbedd nib galo mbàkke dameel bi jëmu la jaaraama seexuna al karim yaa jara sant di yéem liitar nga wuute nga karim yow ku la am sax ñàkku la du sas murit du war di laaj idaaya maam Cerno du jàng du ñoddi mooy borom inaaya maam Cerno du laaj te loo ko jox mu sant boo ko joxul bu la gisee ni pat xàmmeewul woon baa doola waag waa nguur wa ca la mu naroon ku mooy mu wan la yoon wa musta par parloo maam Cerno du wàlli parti ku mooy mu wan la yoon fa daarul mooti taxawlu naa seexu naal basiir nag ñu defal kullu nasiir dunyaa ki laaxira buur mbakke sa baax gi jomb la subhaana rabbika rabbil izzati amaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillaahi rabbil aalamiin jërëjëf borom daaru